asalaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk internet de Lou'Bess TV euh, nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax am mbégte ak kontaan te jàkkaarloo yu ngeen ñi nga xam ne yéenay teewlu ak di bàyyi xel Lou'Bess TV euh, di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne nag tey dañoo ñëw ak yéen euh, ci entretien boo xamante ne nii bu yaatu la ñu fekkoo ko ak ñi nga xam ni ñoom ñooy waa association Yaye Coumba lutte contre le cancer basé wu foofu nga xamante ni moom mooy Genève ki ma dalal nag muy seen coordinateur monsieur Sadio Kamboj nekk coordonnateur à Touba waaye nekk sociologue foofu ci hôpital Cheikhul Touba moom la ñu dalal tey fii Lou'Bess TV ñu fas yéene yaatal euh, ci lu am solo muy seen association bi nga xam ni lancé nañ ko lu yàggul dara ki ko basé woon nag ma nga foofu ci diwaanu Genève xam naa laataa ñuy yaatal waxtaan bi rek di ci xuus dañu koy bàyyi mu présenté wu nuyu ak téléspectateur Lou'Bess TV yi koy seetaan su ko defee ñu woyee moom ci waxtaan bi monsieur Sadio Kambodj maa ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi lay ziar Siste Babel. mbaa la fii ci coordonnateur association Yaye Coumba lutte contre le foofu ca Genève nga ñëw teewal leen fii nii euh, tey bu bëggoon xam moo undu li nga xam ne moom mooy association bi tey. voilà merci beaucoup Siste euh, association Yaye Coumba man nekk le coordonnateur euh, ci li nga xam ne tey moom mooy objectif association bi association Yaye Coumba li ko andi mooy. que ki ko créé nekk une femme battante une femme persévérante tudd Fatou Samb la tax mu am inspiration pour créer association bi mu ngi jóge ci waajuram bu jigéen waajuram bu jigéen moom moo tudd Yaay Kumba moo tax ñu jël association bi dippee ko Yaay Kumba la tax mu ins créer ko mooy que association Yaay Kumba tey mu ngi jóge ci waajuram bu jigéen boobu nga xam ne tey moom moo amee li ñuy wax cancer jàngoro jooju ñuy wax cancer mu jël ko nag bu yóbbu ko Europe yóbbu ko Genève pour mën ko faj mais malheureusement que elle s'est remuée terre et ciel pour def li nga xam ne tey moom mooy euh, kattanam waaye malheureusement que yaay ji mujj wàññeeku euh, bi mu génnee nag ci situation émouvante boobu situation de tristesse et d'angoisse ca la xalaat ne man mii kat lii nga xam ne tey jot na sama waajur bu jigéen pourquoi pas tey ma continuer di jàppale nit ñi nga xam ne tey ñoom ñoo am jàngoro jooju muy cancer. Mhm. fa la xalaatee loolu ba créer association Yaay Kumba. Yaay Kumba ayca euh, ñu gis ni tey euh, li nga xamante ni bii ni taxawal na ko muy association bi victime la si euh, waajuram bu jigéen moo amoon li nga xam ne moom mooy cancer fa feebaru cancer ba yàlla dogal li mu dogal ci moom tey yow mi nga xam ne yaay coordonnateur xëy na xam nga si loo xamante ni tey jii ni mooy ban ban ban ban dund la si waajuram dund boo xamante ni moom touché na continuer wéyal li nga xamante xamante ne moom mooy xeex euh, cancer fii ci Sénégal. waaw effectivement loolu bi nga xam ne loolu xew na euh, ñu yóbbu ko en en France euh, médecin yi xamal na ko yaayam mu ngi ci ay mujjam ay dundam yu mujj maintenant moom nag elle avait fait un pacte avec yaayam. parce que dafa waatoon ne dina faj yaayam ba delloosi ko ci ay njabootam. Mhm. mais bi mu xamee loolu la def la tout ba indiwaat yaayam fii au Sénégal mu yóbbu ko ci benn clinique mhm. bi mu ko yóbboo ci clinique boobu noonu moom à sa grande surprise mu fekk fa ay yeneen maladies yoo xam ne ñoo gën a sonn yaayam. dem na sax bu fàtte euh, maladie wu yaayam ji. Mhm. di questionner les autres patientes. Euh, ca la xam ne dëgg-dëgg maladie bi nekk na maladie boo xam ne sonal na sénégalais yi sonal na population yi nga xam ne amuñu doole pour ñëw faj loolu ca la ne moom quoi pas moom mu jël ay matuwaayam jël euh, responsabilité am créer association bi loolu nekkoon loo xam ne lu émouvant la woon parce que boo xoolee situation yaayam mu bëggoon def la tout ba yaayam wër mais malheureusement que yaay ji warul hmm. loolu nag nekk loo xam ne tey fi ko indi aussi mu fekk fa yeneen cas yu gën a graaw hmm. parce que nag cancer dafa nekk euh, feebar joo xam ne fu mu nii mu lëmba dëkk bi te dafay causer ay décès yu bëri bëri ci année bi. donc loolu nekk loo xam ne frappé woon na ko. Hmm. ba mu créé association bi créé euh, association bi dangeen a tëb ubbi ko. da ngeen a tëb euh, créer li nga xam ne moom mooy turu association voilà da ngeen a am ay démarches yoo xamante ni bii def ngeen ko ba ba ba ba valable doog a li nga xam ne moom mooy association bi. waaw xam nga association tey boo koy créer dafay am lu ñuy wax l'idée idée association bi idée bi nga xam ne moom nga am ne man lii kat laa bëgg créer mhm. léegi nag ci kaw boo ko créer lan ngay njëkk a def def benn organisation woo ay nit ñu ñëw ne adhéré. bu ñu ba en un certain nombre ngeen def la formalisation formalisation bi mu ngi lan ngeen def la mise en place d'un bureau bureau boobu ngeen di def moom mooy définir li nga xam ne moom mooy avenir association bi ñu créer bureau faatu Samb nekk présidente euh, vice présidente bi nekk Ndeye Fatou Dieng et cetera et cetera ca lañ jóg nag dem defi lu ñuy wax la formalisation comme ni mu la ko waxee sànq léegi nag formalisation la ñu dem wuti ay këyit reconnaissance juridique yu wone ne association bi existe na mais existe na aussi ci anam ni ko yoon waxee voilà loolu am ba pare ca lañ doog a xuus nag pour gën a continuer. ay ca kon ñu xam ñu gëm ni association la boo xamante ni bii nii du ay wax yi kese si écran yi wala ci ci réseaux sociaux yi dafa légal am ay papiers yoo xamante ne bii nii fu ñu ko tàllal ñu dina wér ni euh, association bi association boo xamante ni bu bu ñu bu ñu ñu valable la est-ce que reconnaître nañ ko euh, si état bu Sénégal bi comme que ki nga xam ne moom moo basé wu li nga xam ne mooy bi mu ngi Genève. waaw xam nga tey bu fekkee reconnaître nañ ko au niveau de Genève foofu nekk siège bi ñun fii au Sénégal nekk la base parce que cible bi c'est la population du Sénégal nim mu amee reconnaissance juridique en Genève en Suisse noonu lay amee reconnaissance juridique fii au Sénégal parce que loolu ci fan yii passé ci loolu lañ doon dox ba déposé nañ papier yi léegi dañuy xaar. bu ko defee euh, acte bi bu génnee ñu xam ne kayit bi kat yor nañ ko même reconnaissance juridique bi nekk Genève kese kese kese tey c'est à travers le monde parce que papier reconnaissance juridique bu ñu la ko may état bu la ko may yeneen état yi dañ koy reconnaître parce que dafa jaar ci li nga xam ne te moom mooy loi ak yoon li yoon wax. donc association bi tey même bu ñu ko wutalee papier fii nii aussi jaar na ko c'est parce que fii mooy cible bi. donc base bi mu ngi Genève mais de serait-ce que donc. ayca ci li may ñëwee ak yow mooy li nga wax léegi euh, loo gis lu nekk dafa am yoon dafa am it règlement est-ce que moom it euh, am na yoon yoo xamante ni wala buntu yoo xam ne jaar na fi si ñi nga xamante ni bii tey war na associé wala war na euh, coaliser ak ñoom pour que ànd ak ñoom ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey muy association yaay Coumba lutte contre le cancer. waaw moom la président dafa nekk nit koo xam ne elle est tellement relationnelle moom yàlla da ko relation yàlla ma ko da ko may carnet d'adresse tey am na ay ministres yu bëri yu ci gouvernement bi actuellement ay xaritam lañ ñoo xam ne yàgg nañ di liggéey ensemble kon loolu moom bu ko bëggee dafay yomb ñun ñii aussi ñi nga xam ñun ñii nekk fii coordonnateur fii Sénégal ñun aussi newul ne dañuy doog a ci association xam nañ ni association xam nañ fu ñu bu fekkee bëgg dañ am reconnaissance juridique fu ñu bëgg a jaar loolu yëpp xam nañ ko donc loolu moom je crois que c'est pas un problème du du loo xam ne daf ñuy handicapé suñu suñu mission mm-hmm. euh, ñi nga xamante bii ñoom ñoo tax ñuy wax dëgg-dëgg euh, tey boo nekkee si benn base nekk ci di si doxal li nga xamante bii ni lu am solo bokk na ci li nga xam ne tey euh, LISCA di nga naan LISCA donc est ce que yéen euh, jóg ngeen def démarche dem seeti waa LISCA waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom mooy seen association bi tamit. Euh, LISCA lutte sénégalaise contre le cancer. Mhm. ñoom association boo xam ne ñoom dañu yëngati ci wàllu cancer du sein. Mhm. mais ñun association Yaay Kumba dañoo def cancer en manière globale. Mhm. parce que am na cancer du sein cancer du foie cancer de col de l'utérus cancer du prostate et cetera et cetera ñooñu Euh, signé nañ benn partenariat boo xam ne ñun bu ñu demee soumetre leen suñu objectif suñu mission ñoom dañoo kontaan ba partenariat boobu ñu sàkk ko bu ñu signé ko président signé ko ak ñoom actuellement nous sommes en partenariat avec waa LISCA parce que LISCA nag ñëpp a ko xam donc ñun aussi bu ñuy lutter la même cause war nañ lëkkaloo ak ñoom ba lépp lu ñuy def mën a mën a addu yoo mën a addu réew alors euh, euh, dans tous les euh, termes donc li nga xamante ni moom mooy cancer ngeen nekk ci di ci xeex tey yow mi nga xamante ni tey sociologue nga lu mu gàtt gàtt am na loo xam ne war nga koo xam ci li nga xamante ni moom mooy jàngoro yi cancer tey ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ak di la suivre leen a mën a indil ci li xam ne moom mooy jàngoro yi cancer ndax boo xoolee am na si ñoo xam ne xaw nañoo sàggan ci li nga xam ne moom mooy wàllu woowu noonu muy que dépistage yi nga xamante ni bii nii ñi koy ñi ngi koy amal boo xoolee ñenn ñi bala ñu koy def ñi ngi koy def mois d' octobre bu ñu ne octobre rose teru na waaye boo xoolee it euh, du loo xamante ni yoon la ci ki nga xamante ni moom war a saytu wér-gu-yaramam war di bàyyi ba at ba at di dem di saytu li nga xam ne moom mooy wér-gu-yaramam lan na ñuy indi tey si li nga xam ne moom mooy euh, cancer. waaw xam nga ñun Sénégal dañu faral di def benn benn affaire boo xam ne euh, jëmalu kër jëmaluñu kër ci ci kanam. parce que sénégalais dafa miin que tànk que feebaru du dem hôpital te loolu nekk danger boo xam ne Euh, en général maladie bu ñu jàpp rek daf ñuy sonal dafa ñuy ëpp doole euh, ci kaw loolu nit ki moom moo war a jël responsabilité te nag hôpital dafa nekk loo xam ne nit dañ ko ragal dem fan nii rek nit ñi dañ ko ragal c'est un choc psychologique. su ma ñëwee foofu comme li ñu wax naan dépistage bu amee euh, turu dépistage rek nit ñi da yóbbu seen fiti si si si si octobre rose bi ñu bëri dañuy bëgg dem mais du ñu bëgg parce que seen fiti est-ce que loolu dépistage bi dafa nekk loo xam ne lu metti la wala loo xamante ni bii nii la moo tax nit ñi daf ko stress. <coughs> waaw mooy li la expliquer rek xam nga population sénégalaise bu fekkee ñoom miinuñu di dugg hôpital di génn. di xool seen wér gu yaram di jël seen responsabilité ça cause un problème loolu nag dafa dafa laaj démarche dafa yàlla laaj sensibilisation moo tax octobre rose saa yu ñëwee euh, organisation yi nga xam ne te ñoom ñoo taxaw ci wàllu man noonu en collaboration bien sûr avec le ministère de la santé mu ciy def ay jéego di ci def kent lay katanam ñoom dañuy organiser ay thématiques organiser ay sensibilisation organiser aussi des journées de dépistage gratuites mm-hmm. dépitage bi tey bu fekkee euh, dafa nekk à trente mille francs tey ministère bi jëloon na dogal wàññi ko ba quinze mille francs pour permettre aux population d'aller sa dépister tout autant qu'il ne soit avant qu'il ne soit trop tard léegi nag dépistage boobu nag ca la ñëpp war a profiter occasion pour wan a seet seeni wérgu yaram parce que cancer maladie bu mu mënta nekk tey boo ko njëkkee xool wala boo ko boo ko teelee xool avant mu lay gañee euh, mun nañ ci andi saafara le plus rapidement possible mais tey bu fekkee dépistage boobu nag amul nit ki daanu feebar ñu dem ne gis ne cancer na c'est trop tard ça sera trop difficile à à mais nag loolu moo tax képp koo xam ne tey organisation nga di wax dox ci loolu da nga wax def sensibilisation ñu war a won population bi ne dem defi dépistage

ngeen amee malade du ngeen jaaxle da ngeen leen di pour que ñoom ñu mën a taxaw seen ay malade euh, merci beaucoup Siste Babel ci question bu ama am solo bi kontaan nañ ci bu baax xam nga tey association bi loolu lañ njëkk a réglé tey dañoo fexe euh, am ay médecins yoo xam ne sont membres de l' association tey boo demee hôpital Dalal Jàmm am na am nañ suñu membre boo xam ne moo ñu fa représenté nekk un médecin docteur Thiam ma koy saluer de passage di ko remercier nag ci ci ci ci liggéey bu muy def parce que association Yaye Coumba saa yu amee malade évacuer fa ko foofu moom moo koy jël en charge dans la gratuité loolu nekk loo xam ne yombul donc euh, boo demee ci yeneen hôpitaux yi aussi ñun am nañ fa ay représentants yoo xam ne tey fépp fu ñu yëkkatee suñu téléphone woote fa rek malade bi dañ koy jël en charge parce que loolu aussi bu amutoon collaboration boobu bu amutoon dafay métti pour suñu liggéey. voilà. Euh, ñu kontaan ci loolu bu baax a baax yaakaar naa foofu tamit am na solo pour que ñi nga xamante ne ñoom ñi ngi suivre ak di seetaan ñu xam ne encore une fois association Yaye Coumba euh, moo xam ci hôpitaux yi la wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi mën a ànd boole collaborer ci li nga xamante ni moom mooy association bi nga xamante ni bii ni taxawal nañ ko ayca lan mooy seen seen seen objectif yéen association Yaye Coumba lan mooy seen programme tey bu ngeen doon ñëw indil ñu li nga xamante ne bii ni tey yéen loolu ngeen jug pour indil ko askan bi nga xamante ne bii nii ñoom ñoo leen di suivre. xam nga association euh, c'est comme une constitution euh, munie des règles des droits et une mission aussi mission bi nga xam ne ñun moom lañu am mooy venir en aide aux patients atteints du cancer ci kaw loolu ñun jël nañ suñu jumtuwaay teg ko sur la table parce que quand on on organise. mais quand n'a pas les moyens on s'organise ñun puisque amaguñu moyen dañuy organiser wu ba tax na biñ defee suñu bureau dañu def suñu carte membre di ko jaay suñu biir euh, terewut aussi bind nañ projet boo xam ne projet boobu de financement la tey bailleur wala bonne volonté buñ ko talal nga liir ko comprendre da ñu mën a financer ci ñetti vole yi financièrement ci matériel wala ci médicament donc loolu lañ soxla te loolu ñu ngi ciy dox bu baax a baax parce que euh, projet boobu nga xam ne moom lañ bind euh, may nuyu de passage monsieur euh, Ibrahima Ba l'informaticien de de Touba moom mi nga xam ne moo ñu bindal projet bi mu nekk projet bu ama am solo boo xam ne ku ko liir joxe nga vraiment sa aval joxe nga sa sa sa sa remerciement ci loolu donc projet boobu noonu tey moom moo ñu yóbbu fi nga xam ne moom lañ bëgg a dem parce que nag aussi saa yu ñu amee malade. dañuy def appel au fonds dañuy woote fii woote fële wala ñu jël ci xaas bi nga xam ne tey moom lañ jaay carte membre assister ñooñu ba ñooñu am satisfaction def retour du ñu remercier kon association bi tey warul yem ci ay jaay carte membre kese warul yem ci li nga xam ne tey moom mooy appel au au au fonds mais dafa war a bind projet pour mën a exister. mën a projet bind ngeen ko. waa projet bi bind nañ ko ba paax. ayca comme que li nga ko waxee sànq segem amagoo bon <coughs> da ngay organiser wu est-ce que am ngeen tey ay partenaires wala ay bonne volonté yoo xamante ni tey ñu ngi ñëw di jàpp ci association bi parce que lutte contre le cancer ku ne xam ne ni cancer euh, nekk na loo xamante ni bii nii yombul nga yor si nag ay maladies maladies yoo xam ne dañ la koy euh, signaler booba léegi ngeen si dox ay jéego est ngeen ay partenaires wala ay euh, bonne volonté yoo xamante ni ñu ngi ñëw di jàpp ci liggéey bi. bien sûr boo seetloo. Euh, en Europe am nañ fa ay partenaires Suisse ci boppam am nañ fa ay partenaires yu bëri ay hôpitaux et cetera boo demee Finlande am nañ fa un coordonnateur bi nga xam ne tey moom mooy Pape Diakhaté kooku aussi c'est un partenaire boo xam ne mu ñuy wutal foofu ay partenaires boo demee Paris euh, même chose boo demee Italie même chose kon partenaires yooyu chaque fois saa yoo à chaque fois que le besoin est là ils nous ont répondu sont venus vraiment en masse nous soutenir loolu moo tax li nga xam ne tey am nañ ko ay comme ay matériel ñu war ko andi dafa am fu ñu war a jaar pour mën a andi loolu mooy lan def appel au fond loolu mooy li nga xam ne tey fii ci Sénégal aussi am nañ ay bonne volonté yoo xam ne tey saa yu ñu leen wooyee dañuy def dara parce que nag aussi am na ñu bëri ñoo xam ne am nañ alal dañuy ut occasion biñ duggee jëlee seen xaaj dimbalee ko askan wi heureusement que association Yaye Coumba ñëw koo ko présente rek moom il est prêt pour donner donner vraiment son argent et son soutien. Mm-hmm. ay ci si kaw appel au fond boobu noonu naka lay demee da ngeen di toog nii euh, lancer ko wala da ngeen di am lancement boo xam ne da ngeen koy demare pour que appel au fond boobu noonu les bonnes volontés tamit ñëw fekk leen ci. effectivement merci beaucoup pour la euh, la question euh, tey boo demee date bi nga xam ne tey moom la ñu retenir muy le 7 décembre. dañu am congrès appel de fonds aux bonnes volontés bind nañ li nga xam ne tey moom mooy ay soutien invitation bind nañ ay demande le 7 décembre la ñuy organiser un grand congrès congrès boobu nag liñ ñu def mooy appel de fonds pour mën a duy li nga xamante moom mooy Gafa Kaw association bi appel de fonds boobu nag lépp loo xam ne tey jun jumtuwaay la lépp loo xam ne moyen la lépp yoo xam ne par exemple nit ku nit loo koo xam ne tey bonne volonté la tey woo nañ ko ci ci ci congrès boobu bu ko defee moom mu mën a euh, rassembler ses ressources mën a rassembler ses ses ses outils pour mën jagleel ñu ko ci kaw loolu euh, bu ñu defee euh, congrès bi ba pare dafa am benn conteneur boo xam ne c'est une valeur de deux cent cinquante millions. boo xam ne tout est médical ak matériel médical la matériel médical yooyu tey bu ñëwee fii ci Sénégal dina am njeexital bu baax a baax bu mu def dina am benn benn histoire bu mu marqué parce que hôpital yi nga xam ne tey bëgg nañ fonctionner te amuñu ay jumtuwaay yu bëri ñun dañuy jël matériel yooyu mais conteneur boobu du du du loxo nen ke moo koy indi conteneur boobu il foo faut minimum cinq millions pour mu ñëw au Sénégal donc loolu bokk na ci. li tax ñuy créer congrès boobu noonu tey le 7 décembre nga xam ne buñ ci génnee lépp lu luñ ci am rek dañuy fexe conteneur boobu ñëw ñu mën a continuer suñu suñu objectif. ay ci naka ngeen organiser li nga xamante ni moom mooy euh, comme ni nga ko waxee le 7 décembre événement boobu noonu appel au fond bi ngeen di am euh, li ko li ko wund li koy sabab mooy que ngeen mën a xëcc conteneur bi nekk Finlande mu mën a ñëw fii nii Sénégal. Mm. ngeen taxaw ci li nga xamante ni ñoom ñooy euh, hôpitaux yi wala poste de santé yi est-ce que association Yaye Coumba am nañ ay ay ay coordonnateur wala coordonnatrice si ñi nga xamante ni moom moo nekk hors Fatick Kédougou Kolda et cetera et cetera. voilà xam nga pour l' instant euh, Dakar la ak Touba léegi man mi nga xam ne tey man maa nekk euh, Touba euh, man maay coordonné Fatick région de Fatick maay coordonné région de Kaolack maay coordonné maay région de Kaffrine léegi nag au fur et à mesure puisque nag mbir mi association bi mu ngi juddu le mois de mars passé amagul sax un an ñun suñu mbëbët mooy dans chaque région ñu am fa siège. am fa ay waaye am fa liggéey boo xam ne te moom la bu di def. te ubbil ngeen leen seen bunt. bien sûr pour ñoo leen di déglu. l' association est ouverte à tout le monde képp koo xam ne tey bëgg nga ñëw rejoindre l' association Yacoumba euh, n'hésitez pas à à appeler euh, à ces numéros 77 443 76 04 bu ko defee ñu dugal la ci association bi nga jënd carte membre nga nekk membre sympathisant bu ko defee région bu nekk. bu ñu fa amee un coordonnateur rek dina baax te loolu lañu loolu lañ bëgg voilà ayca euh, euh, conteneur bi nga xamante ni moom moo ngi ñëw ci laay abusé wu ba léegi donc comme ni ngeen ne 5 euh, millions moom mooy tax mu daal di koy indi fii nga xamante ni moom mooy Sénégal donc ngeen am ay bonne volonté yoo xamante ni bii ni tey ñi ngi jàpp seen i combat boobu ba léegi ñoom ñu ñëw jàpp ci li nga xam ne moom mooy conteneur bi ñu andi ko Sénégal ndax kenn ku ci nekk ci hôpitaux yi wala ci poste de yi nga mën a am sa wàll ci naat bi waaye tamit yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci ci région yi ñoom tamit soxla nañ li nga xamante ni moom mooy matériel yi ngeen xam ne bientôt yéen koy indi fii nga xamante ne bii nii moom mooy euh, Sénégal est-ce que a ngi leen bàyyi xel muy waa raison yi. waaw effectivement xam nga tey ñun li ñuy li ñuy def mooy essayer de faire euh, le tour du Sénégal dans les quatorze régions euh, wàcc ci département yi wàcc ci communes yi sélectionné naam lépp du mën a mot cette fois-ci pour la première fois mais dañuy def ñi nga xam ne dañuy def euh, sélection. xool ñi nga xam ne tey ñoom ñoo gën a soxla loolu te dëkk boobu am na benn benn benn capacité de population euh, bu fa nekk maanaam si la demande et supérieure à l'offre bu ko defee nag ci la ñuy doog a jël matériel yooyu yóbbu ko ci dëkk yi nga xam ne tey c'est urgent que ñu am ko wala bëgg nañ ko am waaye amuñu moyen te mu nekk village boo xam ne wala poste de santé wala district sanitaire boo xam ne tey population yi fay fajoo bëri nañ donc tey boo jëlee ci yenn région yi amuñ rajo scanner amuñu radiothérapie et cetera et cetera tey bu ñu yàlla jaglelee ñu indi conteneur boobu noonu mais dañuy xool les lieux les plus reculés ñu dem installé foofu nga xam ne tey dina def un ouf de soulagement pour cette population. ayca euh, ñu jaajëfal la bu baax a baax monsieur Sadji Mbodj nekk euh, sociologue optation xadd bu Touba waaye nekk coordonnateur bu association Yaay Coumba lutte contre le cancer. alors ñu bu ñu nee octobre dañ naan octobre rose mu nekk euh, fin semaine bi nga xamante ne bii nii moom mooy tëj li nga xamante ne moom mooy comme ni ñu ko ni ñu ko dooree woon ci ndorteelu octobre bi muy octobre rose ñu ngi sensibiliser ñi nga xamante ne bii nii ñoo ñoo amee jàngoro ji waaye ñi ko amul ñu leen di ñaax ak di leen euh, gën a ñaaxaat ñuy dem di defi dépistage saytu li nga xam moom mooy seen wér-gu-yaram octobre rose bi fay na donc yow mi nga xamante ne bii tey euh, yow yaay yow yaay yow yaa tëj tey mën naa ne yow yaa tëj li nga xam ne moom mooy euh, dernière émission si li nga xam ne moom mooy octobre bi lan ngay ban message ngay lancé ñi nga xamante ne bii tey ñoom ñoo lay seetaan ci octobre rose bi waa di gërëm di sant ñëpp rek di leen wax rek ne octobre rose xam ngeen ne c'est mois boo xam ne moom lañ jagleel lépp luy cancer Euh, ci kaw loolu dañuy profiter occasion tey di doon def ay dépistage di def ay thématique di def ay émission mais aussi di sensibiliser ni ñi pour ñu dem defi dépistage parce que boo seetloo ministère de la santé vraiment mooy te ñu koy remercier euh, wàññi woon na affaire bi wax naa la ko sama njëlbeen de trente mille francs à quinze mille francs c'est pour pousser. à la population ko ñu dem defi dépistage euh, beneen anam bi nga xamante moom lay wax aussi damay chante la bravoure d'autres associations am na ay association yu bëri yoo xam ne célébré nañ ay ay ay ay octobre rose comme LISCA et cetera et cetera comme association yaay Kumba aussi euh, fu ñu dem wax ne Euh, lii nga xam ne tey moom mooy cancer mun nañ ci fagaru euh, bu baax a baax ci kaw bu ñu defee dépistation bi mu teel nga xam ne tey bu ñu gisee signe bi ñi mën ko éradiquer bu ñu ci gisul signe bi aussi ñu sant yàlla bu baax a baax kon ñu ngi lancer un appel à tout le monde l'association Yaye Coumba est ouverte képp ko bëgg a adhérer ñëwal nga rapproché wu. soit ci coordinateur yi wala soit ci ki nga xamante moom mooy yor suñu communication mooy Sista Babel euh, kooku nekk ku jàmbaare nekk koo xam ne tey euh, ñun association fépp fu ñu jëm moom moo ko fa yóbbu ñu la ciy gërëm bu baax di la sant tey euh, émission yi ñu def yëpp yaa ñu ko permettre tey aussi ñun ñu jël am am engagement boo xam ne tey à chaque fois. bu ñu amee émission dañuy jóge Touba ñëw defi ko ñibbiwaat parce que nag association bi def ñu jaral association bi dafa nekk loo xam ne ci suñu xol la nekk parce que ci lii suñu liggéey la bokk parce que tey nit toog am njaaxle nga nga nga nga nga wollu ko ba soulager euh, souffrance am xamoo sax ni mu toll en tout cas ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier notre présidente euh, Fatou Samb une femme brave une femme persévérante une femme euh, qui a sur la sueur de son front sur la poussière de ses talents pour indi li nga xamante moom mooy association Yaye Coumba muy njëriñu ñëpp ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di ñaanal aussi vraiment les autres membres ci seen taxawaay ak ci seen pas-pas association Yaye Coumba c'est une famille c'est une famille boo xam ne ñëpp a bëggante ñëpp a jàppante te pour ñu gisante sax problème am na ñoo xam ne jusqu'à présent mosuñu gisante waaye c'est une kon loolu nekk na loo xam ne aussi il faut que ñu xam ko xam ne association bi lépp loo xam ne lu baax la rek nañ ko ñépp jàpp yóbbu ko ca kanam ay mu ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax monsieur Sadio Komboj comme ni ñu ko waxee sama ndorteel rek monsieur Sadio Komboj euh, coordonnateur association Yaay Kumba foofu ca Touba waaye it di sociologue boo xamante ni bii nii mu ngi euh, hôpital Cheikhoul bi nekk euh, Touba nag ñëw fii nii rek daal di ñëw nanguñu suñu invitation fii nga xamante ni moom mooy lu bees TV ayca di leen wax ni nag association Yaay Kumba lutte contre le cancer basé foofu ci Genève ubbil na ñëpp ay buntam rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy tous les bonnes volontés yaa xam si état bi nga nekk yaa xam si si si pouvoir nga nekk yaa xam koo xamante ni social rek moom moo la ñor te moo la intéressé association Yaye Coumba ubbil na la ay buntam pour que nga ñëw indi sa doole wala sa xalaat wala sa ñax ci li nga xamante ne bii nii moom la ñu sumb ànd ci ak seen présidente bi basé wu foofu ci Genève muy madame Fatou Samb moom tamit ñu ngi koy nuyu de passage di ko kontaane bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal li nga xamante ne bii nii sumb na ko muy liggéey bi yàlla saa may ko ci ndam du rëy incha ci kàttanu yàlla di leen fàttali nag ñu am événement boo xamante ni ñi ngi ko amal foofu ci Suisse Genève le 7 décembre incha allahu rabbi mu nekk nag euh, congrès boo xamante ni bi li ko li ko moom mooy euh, lancer li nga xam ne moom mooy fond association bi waaye di leen joxaat tamit li nga xamante ni moom mooy information bi nga xam ne monsieur Sadio Kombo jox nañu ko léegi muy conteneur bi nga xam ne am nañ ko foofu ca Finlande war ko indi fii ci Sénégal taxaw ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi waaye ci poste de santé rawatina ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk fële ca village yi fu seen na leen say jox ay matériel yi nga xamante ne bii nii kenn ku ci nekk mën nga see jariñoo euh, li war a indi conteneur bi nag que toll na si 5 millions ubbi bunt yi tamit pour tout les bon volontés ñëw jàpp si conteneur bi ñu indi ko Sénégal jàppale si jox si ñi nga xamante ne bii nii ñoom ñoo ko yittewoo fii ci poste de santé ak si hôpitaux yi di leen kontaane di leen jaajëfal bu baax a baax na leen Abana Gassi à bientôt incha allah rabbi seen beneen plateau jaa ngeen jëf merci beaucoup